marhaam bikum Ousmane Sonko samp na ndëndëm ngir bokk ci jongante njiitum réew mi 2024 te mooy yéene kaay ak journal yu bari ñooñu ko xamal fa doon janook taskatu xibaar yi niki démb bés bi yéene kaay na ko Ousmane Sonko kay door na combat ba ngir bokk 2024 turbine yéene kaay ne ginnaaw Bougane Gueye Dany Sonko tamit topp na ca waaye Malick Gakou moo leen njëkk a wax ne moom candidat la critique yéene kaay ne Sonko lii mu wax na ne candidat la est-ce que foogu leen ne fa nar a yàqal ñi nekk ci kujje gi surtout yeewu askan wi bëggoon a candidat naka noona tamit ña nekk Pastef est xaar ba parti bi tànn moom Sonko la dépêche yéen kaay mel ni ku naan leen yéen tamit bàyyi leen seen waxu saytaan jaxase yooyu ndax yéen yéen gën a xam ne Pastef càppaacóoli ga ngonk ma ponkal ma ki Sénégal yi bëgg du kenn ku may Sonko comme ñoom waa Pastef yëpp d'accord nañ ci Sonko nekk seen candidat suñ bëggee gañe waa yeewi askan wi nag ba ci waa wàllu yi kum neex mën ngaa nekk candidat Karim Wade candidat critique yi ne kaay ne Ousmane Sonko démb fa kaata xuri Pape Djibril Fall donte sax tudd turam waaye la wax ku nekk xam na ne Sonko Pape Djibril la doon wax ak yow seetal xam nga lu mu wax koo xam ne député nga gis ku jégi ñuy xeex nga ne man ànduma ak Macky ànduma ak ku jégi loolu mooy ne yow fa ngay jàppale Macky ndax far moom ñëpp ko def kon soo fekkee ñuy xeex ka tooñ soo jàpp sa loxo ba na ko bàyyil tooñ nekkoo ci dëgg soo deful loolu moo ne fa jàppale ki tooñ léeg si ko yéen wax non inscrit mooy Pape Djibril Fall li Sonko jàpp mooy képp ku xeexut Macky Sall wala defoo lu naqari Macky Sall moo ne yow Macky Sall ngay liggéeyal libération ne Ousmane Sonko nag démb wax na ay xibaar yu garaaw yu yéeme yow seetal Macky njiiti réew mi état bi fi mu toll nii ña ngay tappale lijjanti ay dossier ngir tuumal ma man Ousmane Sonko ne terroriste la rebelle la waa Pastef ya ñu jàpp teg loxo fi mu toll nii fañ leen di sant ñu soppi seeni kàddu tuumal ma ne maa leen yónni jox leen xaalis ngir ñu taxar réew mi su ko defee ñu mën ma te faa leen di xamal nga lan moo ko rey moom it fañ ko ko signal PV la yónni man nga ngay ab terroriste nga mu ne ko def ndax loolu du dëgg musumaa gis Sonko ci lañ ko toroxalee ba mujj faatu kon yéen militants yi ak sénégalais bu mu leen bett semaine yi di ñëw ak weer yi di ñëw makkeek ñi mu àndal danañ génn wax tuumal ma ci lu tegut fenn lu may ay sos ngir teg ma loxo duut pour tëj ma kaso de ndax xam na su ma nekkee kaso xalu safara la ci ñoom déedéet waaye li bëgg mooy nañ ma condamné daan ma ci yoon même bu dee sursi la jaam ak pexe yàlla ak dogalam su neexee yàlla miy dogal faay bokk ci wote yi ndax liñ ma bëggee faagaagalee sénégalais yi duñ ko seetaan te lii yëpp nag réewum France ñoo nekk ci gannaaw Macky Sall ndax tubaab yi fa ñoo bëgg a tànnal président ndax neneen man ma nekk président arrangé tubaab yi te ñun fa ñoo war a moom suñ bopp ba tey ca 24 heures yéene kaay Ousmane Sonko nee na Macky ak àndal état bi fa ñoo dem ba France jël fa ay avocat tubaab ma caaxaan ci ay immeuble état boo xam ne gars yi fañ koo luye ay entreprise quatre-vingt-dix-neuf ans du yoon mbiru hôpital la Dantec Ousmane Sonko nee na leen def leen lu leen neex waaye képp kuñ nga la ko ma nekkee président bu sa delloo ko askan wi ak mboolem kuñ jox lu jaarut yoon Sénégal nag ak askan wi ci kanam ku naan ko hëy yow Ousmane xam nga lan moo war a dakk sa fen gi nga nekkee doo wax dëgg mukk te wax yu amul bopp ak génn rek ngay wax ku yooxu nag di jooy yaa xam nga yooxu te ku dégg dëgg ni nga waxee mooy coalition yeewe ak wàllu tas na ba pare su fekkee ne guerre nga bëgg di ko am de ñu lay xaar kàddoom yaa ci direct news l'observateur na ko faala ci yokkal candidature am bi mu déclaré moom Sonko am na lu nekk ci suuf waxut de laas yéen a kaay na ko man kay faa xamul moom Ousmane Sonko lan moo tax teguñ ko loxo ci mbiru viol Adji Sarr te Sitor Ndour nga ne fañ ko teg loxo moom it ci wàllu viol lan moo tax yet wi dal ci kii boobaa daal man bun Abdallah Jonn laa gis ne Macky mën na ko def premier ministre ah moom am na kóllëre bu Macky tisóole mu ne ko yarhamukallah mooy bàyyi faalam leer la leer ba mel ni jant tusubaar mooy jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gu-yaram wax na ci coowal hôpital la Dantec la yaaw seetal xemes njaay nee na woyu feebar ya malaat ya kenn du leen seetaan ma ko waxee ci le soleil ci enquête yi ne kaay fa caa yokku ne liggéeyu tabaxaat la dantek benn fan ci weeru septembre lay tàmbali lu jëm ci suuf sañ wax na nag fañ koo jaay ku mu neex mën nga cee def enquête kuréel ga nga xam ne mooy xeex intérêt hôpital ba ñoom samedi bii di ñëw la wàcce ca mbedd ma ñaxtu ñaawlu jëf ju ñaaw jañ def la dantek la mu ñaawlu a tas ma ngi ko waxee ca mandat na Pape Mamadou Seck def ba jël taxi Sandaga kër libération moom di ñu xamal ne saako soble fukki junne lay jar jamono jii ca Touba ndax kilo soble ba ma nga ca juróomi téeméer aay ndaw lu yéeme Basiru Ba jiite aar suñu moomeel ne gisagu leen dara de Sénégal gii réew mi dund gu cher jafe-jafe réew mu naqari métti fa nara yokk ndax mbay mi ministre bi mi ngi naan mbay mi dana baax ren ak nangam du dëgg mbay mi narta baax jiw yi baaxu te leen jiyee ka néew fa xam ay sax yoo xam ne fa ñuy lekk dugub ji mboq mi ak ñebbe ji ñu ne déetawaay téeméer ak fukki junne ci ay tonn soble ma nga na la fa yàqu ca diwaanu Podor ma ngi ko waxee ba tax ca Vox Populi nee métti moo nar a yor askanu Sénégal ne xiif gu métti ñàkk luñ lekk moo ñu nar a daal ñun sénégalais yi te loolu baaxut laneen lu baaxut mooy quatre-vingt mille francs yi fi Macky Sall doon yónnee xaalis doon yónnee ci téléphone yi lenn ci askan wi nga xam ne fu ñoo néew doole le quotidien yéen a kaay nee na yu bëri la ca dugal waaye askan wi tuuti lañ ca jot la gën a bëri ca milliards ya kenn xamul fu mu xaw waa banque mondiale ak ministère baak ñoo ñu dénkoon <laughs> hôpital benn waay bu sant jaawoo moo xaritam bu sant Jóob fa ñuy dajale ay xale yu jigéen ne fañ leen di jël utal leen liggéey léegi suñ jëlee numéro téléphone xale yu jigéen ya fañ leen di yóbbu ci ab na la soo bëggee ñu jël la nga liggéey ah fa ñuy bégal fa ngay tëdd ñu def yu fu saay-saay rek nga nangu ñu nekkal ko ca ba pare filmer la nag waxtu nekk ñu lay napp naan la boo ñëwaatu ñu def yu fu saay-saay fay wane sa vidéo bi xale yu jigéen loxo ñooñu war nañoo yàgg ca kaso ga de l'observateur ne keneen ku nar a yàgg ca kaso ga faa koy wax benn waay daal moom jabaru jàmbur yi lay dugal ci néeg rocci paaka na la fa ngay tëdd ñu ànd wala faa rey rek nga mujj d'accord def na ko soxna yu bëri ca ca aan Dakar waaye moom itamit gendarmerie mujj na ko teg loxo